asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yéen mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara. dileen leen baalu àq itam di leen masawu coona seen mbokku Cheikh fay la moo leen di sant bu baax di leen gërëm di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi xalifatul amma di taaifati mimiya sëriñ Muntaqa Mbàkke di si itam sëriñ Babacar Mansour xalifatul amma di taaifati tijaaniya ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara bu baax di si teg itam suñu kilifa Mouhamadul Habib Kandji di si teg itam suñu waajur baay Njoogu Fay fa tabaarakallaahu ñoo ngi koy nuyu di ko siyaara di si teg suñu mag Moussa Fay di si teg itam sëriñ Youssoufa Sarr di ko nuyu bu baax di ko siyaara ak Seex Mamadou Fay ñoo ngi koy siyaara bu baax a baax ndeysaan di nuyu itam al oustaz aadama kap fa tabaarakallaahu nuyu nañ ko rafetlu teewaayam di nuyu itam eh, monsieur El Hadji ak eh, Cheikh Mbaye ndeysaan nga xam ne ñoo ñëwoon ci groupe tour groupe Safinatul Aman wala turu groupe Matlabul ni Touba Soosoos ndeysaan oustaz aadama itam teewal waa groupe yel ñëpp si ndigalu sëriñ Aboubacrine Mbengue ñoo ngi leen di nuyu nag bu baax a baax a baax a baax kàddu yi nag du mën a gudd ndax kàddu yi sant rek la kàddu yi mbégte la kàddu yi kontaante la waaye daal wa ala kulli xaalin na ngeen yëg ni yéen waa tund wépp wépp wépp wépp Cheikh mi ngi leen di nuyu mi ngi leen di siyaara mi ngi am mbégte itam ci yéen di am kontaante si yéen di wax ak yéen nag direct ci rajo Bawal Média FM sant yi nag dara warulu ko lu mooy bésu ñaan bi nga xam ni moom lañ doon defal suñu waajur bu jigéen nit ñi ànd si ak ñun ci taxawaay bu rafet rafet rafet ñu wàccee si si alxuraanul karim si liy toll si fukki kaamil ak ñaar ñu def si si ay istixfaar ak ay salaatu ala nabi yoo xamee ni laa tuaddu wala tuxsaa kenn mënu koo wàññi kenn mënu koo takk lépp rek ñuy ñaan yàlla suñu boroom mu sotti ko ci kawam def ko yërmaande defal ko mbooleem jullit yi ak mbooleem néew ya nga xam ne ñoom la fa fekk ak ñi nga xam ne ñoo ko fay fekk si di beral itam nuyoo spécial sëñ daam kab fa tabaarakallaahu ñoo ngi koy nuyu sëñ daam nuyu nañ la siyaara la bu baax a baax ndeysaan mboolem lañ fa doon xewloo ci wàllu café ndeysaan sëñ daam kab moo ko jaayante ah wolof nag daa wax ni nit sax dana def dara di bañ ku ko tudd waaye man dama koy tudd ndax fa ma bi ni'mati rabbika fa xadis yàlla nee na bu la nit defalee xéewal mu jaarale ko ci nit kookee nee na santal nit kookee ndax yàlla moo ko tàggat jaarale ko foofu ndeysaan fa laaxu di nuyu itam Abdou Mbaye fa tabaarakallaahu daaru Dunya Mbampana ñu ngi koy nuyu di nuyu itam sëñ Saalihu Mbàkke ndeysaan fa tabaarakallaahu taxawaayam rafet na ay kàddoom itam rafet na ñoo ngi nuyu ñëpp nag di leen wax ni nag fa tabaarakallaahu yéen waa jàkk yéen ñëpp ak li war tund jàkk yéen Cheikh fay tàllal na leen loxo di nuyu itam bàyyi xoox seen fa tabaarakallaahu bu ma ko tuddee tuddaale naa tund woowu ñëpp ñoom itam di leen nuyu di leen siyaara di leen wax ni bég naa lool ci yéen kontaan naa lool ci yéen itam di nuyu itam sëñ Moussa Kane fa tabaarakallaahu sama soppe sëñ Moussa nuyu nañ la euh, siyaara la bu baax a baax a baax a baax di nuyu itam sëñ Gay di nuyu itam oustaz Koun di nuyu itam oustaz Ibrahima Diagne di nuyu itam Baye Mbaat Sarr fa tabaarakallaahu di nuyu itam oustaz euh, Moustapha Diagne di nuyu itam oustaz Ngañ Fay oustaz euh, Babacar Fay ñu stage yëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen baalu àq itam di rafetlu itam ci seen taxawaay di wax ne ndeysaan ku dégg kàddu yi rek da nga xam ni kàddu yi kàddu yi mbégte la lottu nañ ci li teew ci xel mi ak li làmmiñ wi wax lottu nañ ci génneeku ngir lan ngir kontaante ngir lan ngir mbégte ngir lan ngir am kawe lool njortu ak rafet taxawaay boo xamee ne rafet na trop ngeen taxawu ko ci bis boobu sa bis bi damaa wax ne ren mooy juróom-ñeenteelu atam waaye incha allahu taala feeg ñoo ngi dund suñu ruux di dox ci kaw suuf ñuy dox ko dikk fas nañ yéene at mu jot ñi di ko def sa incha allahu fa suñu yéene lépp alaluñu jàmbur def si lum ñu fekkee rek incha allahu taala ñu def ko bëgg nañ itam lépp liñ ciy def ñu teg ko ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax man talabal wusula lil jalili fal yactasim bi sunnati rasuli ndeysaan fa tabaarakallaahu loolu la maam see ahmadou bamba wax maam El Hadji Malick moom itam wax ni nit day amul lenn lu muy def bëgg sa njariñu àdduna ak njariñu àllaaxira lu mooy da koo teg ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa kon daal góor ak jigéen mag ak ndaw oustaz Cheikh Faye nuyu na leen astaxfirullah sax ndongali Cheikh fay nuyu na leen mataguma ustaas nuyu na leen siyaar leen bu baax a baax a baax di leen wax ba diwan ak jàmm ba diwan ak jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu